Madja Diop Sané ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi leen di fay di leen fëddale suñu kóllëre eh, di leen ne eh, gàcce ngalaama yéen jigéen ñu surtout di leen ne bonne fête eh, parce que damay wax ni ñun dañuy wax jigéen feetoom du le huit mars mais année bi yëpp dañuy feteel jigéen <laughs> ndax moom mooy fondement société moom mooy ki nga xamante ne moom mooy jox suñu dund mu am sens donc kooku boo toogee ba jour nga ne ko koy feteel fa mel ni dafa am li nga xamante ne koo mbir yan leen war a saa su nekk ci loolu lañ dëkk. Euh, tey euh, yow euh, ñu waxtaanee ci procès bi nga xam ne ñu ngi koy waaj nee nañ le 21 mars lañ jàpp date bi muy procès mbiru Boffa Bayotte ñu dégg leen ci yéen société civile gu locale bi waaye it dégg ci ay baat yu bëri famille yeeg yooyu ñu jàpp date tey nan ngeen ko jàngatee justement. waaw jàngat mi mooy d'abord di wax ni comme li tubaab di wax nee na yeex moo gën mu bañ a am hmm. euh, tey jii mu doon li nga xamante ne ñun am nañ ci contentement parce que euh, jàpp ay doomu jàmbur tëj leen ci biir kaso lu mat ñeenti at juge leen waxoo ci dara hmm. loolu taxoon ñun ñu doon dox ñaxtu di def ay conférence de presse di génn di wax pour lan pour soññi ki nga xamante ne moom mooy justice bi. Mhm. mu def liggéeyam parce que ay nit ku leen tëj ci prison du ay mala nga tëj. Mhm. tey jii bu ñu demee ba am jour bi nga xamante ne bés bi nga xam jàpp nañ ko muy ñaari fukki fan ak benn ci weer bi ñu nekk nii. Mhm. dañuy jaajëfal ñu jaajëfal bu baax a baax justice bi ci bu mu amee euh, courage yu ne dinaa dinaa leen juger. te dinaa leen juger ba jox ñu ba jox ñu bés ñu ci sant yàlla dañuy wax ni instruction. Euh, dafa war a am giir Sénégal nag dañ lay jàpp sandi la en instruction euh, dafay mel ni boo bokkul ci nguur bi Macky Sall bi kenn du la gaaw a jugé d'ailleurs gis ngeen ni euh, ñaari député yoo mi ñu ne kañ le 17 bi lañ leen di jugé. Mm-hmm. ñaata nit ñoo nekk ci prison bi te nekk en instruction ba léegi kenn mënu leen jugé waaye mu député yoo mi jàpp nañ leen yàggul ñu ngi nii ñu ne le 17 dañ leen di jugé loolu mooy encore kumba am ndey ak kumba amul ndey. Mm-hmm. te justice Sénégal bi dafa war a bañ loolu. dafa war a nekk justice bi nga xamante ne day tëddee njaaxaan dafa war a nekk justice bi nga xamante ne du exécutif bi moo koy ne defal muy def mm-hmm. beneen bi mm-hmm. mooy ñi nii ñi jàpp nii mm-hmm. jàpp presque ñaari fukki nit ak juróom tëj leen ci kaso bi ñeenti at bàyyi leen ci biir ñooñu ñuy xiifal yenn saay mu mel ni seen yoon nekku si dañ koy ñaawlu ndax dañuy wax ni ak ak yelleef nit même boo ko tëjee ci prison sax day am yi nga xamante ne ak ak yelleefam la mm-hmm. donc dañuy bëgg Sénégal gi ñuy respecté di jox dayoo ak ak yelleef doomu adama mm-hmm. ndax doomu adama yàlla moo ko sàkk te yàlla dafa jël nit defal ko sutura bi nga xamante ne ku ko xam rek doo xaawi suturoom mhm. yàlla dafa dafa teg doom adama fi nga xam tegu fo benn min benn benn benn benn nit mhm. benn mbindeef benn benn benn benn benn mbir mi nga xamante ne sàkk na ko mhm. amul kenn ki nga xamante ne teg na ko fu mu teg nit donc nit dañ koo war a wormaal d'accord yan crainte ngeen am justement euh, ci euh, procès bi nga xam ne ñu ngi koy waajal waaw ku gis ay nit ñuy jàpp leen ci seen biir kayit yi ñu ne leen luñ leen jugé luñ leen di toppee yéen ñëpp benn mbir bi lañ leen di toppee ñu jékki-jékki bu yëf yi tàngee dem ba ci biir ñu jàpp fukk ak fukk fukki nit ak ñaar ñu bàyyi leen mhm. ñaar ñi ñu ne leen liberté provisoire mhm. yeneen fukki yi ñu ne leen yéen toppeetuñu leen dara mhm. xam nga madame foofu laa bëggoon ñu delu ci tuuti munoo jàpp ay nit tëj leen fukki at yenn saay wala wala nga tëj leen juróomi at nga jékki-jékki bàyyi ko nga ne ko defoo dara loolu tamit état du Sénégal ak justice bi surtout il faut muy il faut que gëstu bu baax balaa muy jàpp nit di ko ci kaso bi ndax tey jii tas nañu famille bëri am na ñi nga xamante ne divorcé nañu dégg ngeen ki ki nga xamante ne benn benn militaire la ñu wax moom moo ëmbal doomam ëmbal jabaram parce que lan la parce que père de famille bi borom njaboot bi mu ngi ci biir prison bi xam nga yooyu noonu ba pare ñooñu tey boo demee ba mun leen bàyyi nga ne leen ñenn ñi defal leen dara da nga jàpp leen tëj leen juróomi nga jàpp leen tëj leen ñeenti at wax dëgg yàlla loolu dañ koy ñaawlu. Hmm. dañu war a respecter les droits de l'homme mais ñooñu noonu ñu bàyyi noonu. ñi nga xamante ne tëj nañ leen ñeenti at jékki-jékki bàyyi leen ne def leen dara. Hmm. mais état du Sénégal daf leen war a indemniser daf leen war a fay xaalis. Hmm. parce que ñooñu daje nañ ca ak ñoom ñu ne ñu seen kër yi nawet bi day daanu. te li li gën li ñoom li leen gën a rusloo mooy bu ñu ñibbee seen kër yi seen doo seen jabar yi ñooy dem dangi dangi pour ñu mën a lekk. maanaam seen kër yi sax ba léegi dara taxawu fa. da nga jàpp doomu jàmbur tëj ko ñeenti at dañuy wax loolu duñ ko rafetlu parce que tamit nit da koy wormal mais loolu am na li tey suñu xel bu ñii nga jàpp yëpp nga ne leen yéen a nii mu am fukk ak nga xamante ne yaa leen téye ba léegi hmm. ñooñu ngeen war a bu weer bi amee ñaari fukki fan ak ñun jugement boobu noonu dëgg la dina am mais ñun dalalu suñu xel parce que dalalu suñu parce que ñu dañoo jàpp jàpp ni ñu deful dara lañ jàpp Mhm. ñi def dara ñoom war nañ ci mën a xam dara ba dem jàppi leen mhm. ñu ñu jàpp ni xam nañ ñi defuñu dara te procès bi dañuy ñaan mu nekk procès public bi nga xamante fu waaye nekk fu ne digg dëgg ñoom seen version ñi nga ñoom ñoo leen jàpp mhm. ñi ñi ñoom leen jàpp dañuy wax ni gendarmerie tamit dañ koy ñaax buy def liggéey bu mucc ay bu rafet waaye mënuñoo génnee gendarmerie mu jóge Dakar ba ñëw fii baak li lu muy def ba pare jàpp doomu suñuy institution yu mel ne ay police ay gendarmerie dañ leen respecté hmm. donc bu ñuy def liggéey nañu def liggéey bi nga xamante ne dinañ ci xool seen ak yaay taalaa hmm. te nit bi boo koy jiñ dara te xamoon defu ko da ngay xam ne aduna am na dund waaye tamit dinañu dee te dinañu layoo ak yàlla hmm. donc dañuy bëgg nit ñi di delloo seen xel bu baax a baax ci yàlla aduna aduna du kër de aduna du kër donc ñii ñi ñuy jàpp ni ñu na ñuy jàpp ni jusqu'à preuve du contraire nii dañoo jàpp ay innocent parce seen biir kër yi lañ leen jàppee ñëw jàpp leen tëj leen ba pare am na yenn yi nga xamante ne lu ñu waroon respecté ci procédure bi yëpp dañ ko baakali defuñu ci dara mooy maanaam lu ñuy wax la rek te madame dam ci boole ci lii nii lancé ci appel léegi mhm. nañu bàyyi ku ñu jàppee Jurbel ku ñu jàppee Thiès kooku ñu jàpp ñu malfaiteur la ku ñu jàppee Casamance ci yenn affaires yi ñu ne rebelle ñun ay sénégalais lañu. Mhm. xamuñu leneen lu dul Sénégal Sénégal lañu am bu ñu bëggee jàmm am Casamance ñu ngi rafetlu d'ailleurs jéego yi nga xamante ne bu président de la république toogee ba léegi. Mm. mu ngi ci. Mm. pour li dalal xel yi pour liy indi jàmm Casamance. Mm. ñu ko ci wax ni ne ci wëy ndax jàmm moom amul lenn lu ëpp jàmm. Serigne Touba nee ne fu ñu nekk jàmmaa fi gën fu ñu jëm jàmmaa fa gën. comme président de la république. toog na jël ay ay dallam di dox jàmm mm-hmm. mu ci am ñi nga mu ngi dëgganteek ñoom pour jàmm dellu si ci biir Casamance mm-hmm. loolu dañ mu taxaw yal na ko ci yàlla gunge waaye ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw ci beneen go beneen boor bi di bëgg a yàq ne mooy jàmm Casamance mooy nga xamante ne képp ku ñu jàpp Casamance rek étiquette la rebelle la étiquette la rebelle koy ñaawlu te di naan mu dagg parce que Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk mm-hmm. Sénégal amul amul amul lakk doom dóor doom nañu bàyyi yooyu parce que loolu tamit dafa ñu bokk ci li nga xam def daf ñuy frustré trop te neexuñu. parce que ñun gëm nañ ñun ñun duñu ay defkat lu bon. Mm-hmm. d' ah. yéen waa mouvement vision citoyenne ngeen di euh, réclamer jamono ji ñu daal di amal ñaareelu phase programme pôle développement euh, bu Casamance lu xew ndax dañ leen a dig lu ñu deful. waaw madame euh, ci pôle développement Casamance tey wax nañ ci sax ci ci ak ci ci ak taskatu xibaar yi parce que. Mm. dañuy rafetlu encore le président de la république lancé programme bu mel noonu bu am mhm. programme bi première phase bi romb deuxième phase bi ñu koy xaar boobu ba léegi mat na at genn wàlla ba léegi dëgguñu ci dara mhm. sauf que dañuy dëgg président de la république wax ni deuxième phase bi dina am ba mu joxe instruction soññ ñi nga xamante ñoom ñooy ministre pour ñi nga xam ministre nga xam ñoom ñoo yor dossier boobu ñu mun a baral jéego mhm. waaye ba léegi baraluñu jéego ndax ñun ba léegi amuñu lenn lu ñuy ni deuxième phase bu PPDC dina am mhm. te ay nit boo di liggéeyal nag dafay laaj yenn saa nga communiquer ci mais président la république a yéexal yëf yi dafa bokk ci li nga xamante ne président teg na ko fi nee na xëyu ndaw te xëyu ndaw yi mënut a li nga xamante ne moom mooy mbéy bi a jéggi li nga xamante ne moom mooy yar jur gi. Hmm. mooy élevage ak li nga xamante ne moom mooy agriculture li ngay def li ne secteur yooyu noonu lu ñu a jël ci ndaw. amul beneen secteur bu a mën a jël hmm. donc ñun ñii ñi rafetlu li nga xamante ne moom projet agropole mais tamit di ñaan li nga xamante ne moom mooy deuxième phase du ñu def ko nu mu gën a gaawee parce que ndaw yi nañ ci toogaay bi te boo xoolee bu baax ndaw yi jigéen daw Casamance yi lu bëri ci ñoom léegi jakarta yi la ñu jël mhm. te jakarta yi daanaka mënul yor kër mënul yor ndaw mhm. mënul yor sa avenir mhm. te ku nekk bëgg ngaa liggéey ba nga xamante ne saa yoo demee ba retraité wala mënatoo amatoo kattan nga mën a dund li nga liggéey mais tey ji jakarta mënul jox loolu ndaw yi donc ndaw yi bëgg nañ liggéey jigéen ñi bëgg nañ liggéey te gisuñu lenn lu dul mooy dugg ci mbéy mi wala ci yaru jur bi te dañuy wax ni Sénégal mu ngi nii fu lu lépp lu muy lekk da koy jeegaane mhm. mais ci programme yi mel nii mën nañ ci am lu ñu tuddee autosuffisance alimentaire bi nga xamante ne presque 2017 la waroon nekk Sénégal mais ba léegi mënuñu ko am mhm. Mhm. dañuy ñaan état du Sénégal mu baral jéego yi deuxième phase PPDC bi wax dëgg yàlla soxla nañ ko trop trop trop trop parce que am na benn engagement citoyen bi fi nekk bi nga xamante ne c'est un engagement citoyen fort pour l'agriculture ñu man li nga xamante ne bay dund te bay dund mënuñu koo wax ba pare li tax ñu mun a béy dund lu mel ni programme yooyu noonu ñu tegee ko nele mel ni yekk bu naqari pour di dem di jéegaane. ñu wax ba tey ci programme de développement yi mën nañ cee boole pont Marsassoum bi tey euh, dem beeg dikk bi yemb na fa euh, justement ban appréciation nga ci am. waaw tam ko encore di remercier président de la république ci pont bi parce que li nekkoon euh, nu ñu tuddee bagu bagu bagu. Euh, euh, Marsa Sumbi doon na li nga xamante ne dafa doon tax euh, voyage yi wala ñi nga xamante ne ñoom ñooy jël yoon boobu ñuy takkatembe ndax eh, da ngay nekk foofu bu lu mat waxtu wala lu ëpp waxtu di xaar bac bi tey bu ñu amee pont bi dañ koy rafetlu macha allah. Mhm. mais li ñaawlu ci loolu mooy luñ ko bëgg a def pont à péage di leen wax ni dañu jàpp ni bi nanguwuñu te duñ ko mus a nangu. Mhm. parce que munoo ne zone boobu zone Sédhiou bi munoo ne zone bi. Sédhiou mooy région bi gën a ci Sénégal nga bëgg leen tegaloo benn pont nga xamante ne dañuy fay pour jéggi loolu mënta nekk. Mhm. ak tarif yooyu ñuy wax noonu loolu mënta sax waxuñu ci tarif yi mais pont bi nekk pont mariage mënut a nekk te bés bu naree am dinañ ñu gis foofu ñu taxaw tem pour ne kenn du fi jàll parce que chauffeurs ñoom d' accord nañu déjà ni pont bi mënul nekk à pont à péage. Mm. même population Marsassoumi munoo defar lu mel nii ba nit ñi waaj a nga bëgg leen tegal li xamante ne mu mel ni kaani loolu mënta nekk da ngay bàyyi ba nit yi tàccu ba pare def nga lu rafet kay bàyyi nit ñi tàccul la mais tamit ci pont boobu noonu luñ ci gën a rafetlu mooy tey transport bi. mais dafa dafa gën a yombal yëf yi. justement yaa ngi dellu si ci enjeu économique yi. Euh, gis nga ne dem beeg dikk bi dina yomb ci nit ñi mais tamit ci wàllum euh, jënd ak jaay. waaw dikk dem ak dikk bi dina yomb si nit ñi mais tamit transport de marchandise bi jaay bi dina gën a yomb parce que ñoom. côté yooyu noonu dañuy dañuy dana am li nga xamante ne lu bëri lu ñuy béy pour indi ko Ziguinchor wala mm-hmm. Bignona yenn saa yi day métti mm-hmm. parce que bag bi bu wàccee tey dix huit heures ba suba mm-hmm. donc tey jii bu nekk nu mu nekkee nii pont transport yi et pour dem Sédhiou tamit mun nga jël yoon boobu ci lay gën a gàtt sax mm-hmm. parce que yoon boobu moo gën a baax mm-hmm. donc véritablement tey euh, jënd ak jaay bi dina dina dina yamamaay mais tamit ñin ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay ay nit yi nga ne ñoom ñoo fay jàll dem ak dikk bi tamit dafay gën a yamamaay te loolu la xaar parce que dañuy wax ni euh, les les les infrastructures dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy wone koom-koomu réew dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy jógal koom-koomu réew kom koomu réew dafa lalu ci ay heure dafa lalu ci defar les voies de des voies les voies là muy yoon yi muy pont yi ñu koy defar nga xamante ne euh, dem beeg dikk bi day yamamaay te yamamaay boobu la ñu gis ci pont bi buñ ko commencé ba léegi macha allah donc tey jii booy voyager war a dem Marsassoum doo fi nekk di tëdd xalaat xalaat yu bëri yoonoonu c'est parce que da ngay xam ne et puis di rafetlu tamit yoon bi nga xamante ne dèjà léegi mu pare yoon bi bu pare dem ba dikk bi moom macha allah ñun dañuy wax ay autoroute la ñu am. ñu lay jaajëfal bu baax a baax. ñu leen di jaajëfal yéen tamit. voilà yéen jigéen ñi. <laughs> merci beaucoup.